ndeysaan tey li may wax dafa am solo dafa am ñoo xam ne dañ koy dund mais laata ma ci ñëw s'il vous plaît abonneel te nga like vidéo bi te nga digloo ma sa xel bu baax a baax merci kontaan naa ci yow thank you aywa digluwul léeg-léegi da ngay gis nit mu mel benn melokaan bi nga jàppee ko ku bon te boo xooloon xoolam lu baax rekk ngay gis loolu mooy àtte ab téere ci ay feggam mais yëral téere bi ba xam lu muy jàngale ba pare nga dog di ci wax defe naa loolu moo gën wolof sax dafay wax bala ngaa fel gémmiñu sàmm da ngay xam la muy wëlis mais du jooy yoo gis rekk <laughs> ay jooyi naqar la jooy mën naa doon jooyi bànneex nit mën na laa won couleur bu ñuul te fekk na woo couleur bu weex la moo tax bul gis koo xam ne dafa melaw melawu saahir rekk nga jàppe ko nitu zaahir non non wala nitu sawara <laughs> am na ñoo xam ne akañ cee gaaw mbete yàlla gis nga sawara ak àjjana yàlla moo ko moom mooy xool ku ko neex mu dugal ko fa kon bundi àtte nit ci melokaanam boo d'accordé ak man ne ma merci beaucoup jaajëf